yile ay xibaar yu neex la ci Ebola donte dafa garaaw jàngoroy Ebola lu yomba faat la ndax neew doole tàngoor dafay faat jàngoroy Ebola leeraayu naaj bi daf koy faat leeraay daf koy faat saabu fóot ak ordre sawel dañuy faat jàngoro bi yii yépp mën nañu faat jàngoroy Ebola te jàppal ni suñu amee xibaar bu dëggu ànd ak suñu doktoor yi dinañu mën a aar suñu bopp ci Ebola